خاطبه من قال إن الله معنا عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره اللمين لكلكلي وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره اللمين بكلكلي وجسدي ناجيت سلعس العظيم بالحب معذر النسيم ولي كان بعظيم وسالني عنه السديم نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وعيبي بالشفار مستغنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيت ربي بارس إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد dañoo ñëw fii ci ndigalal Cheikh Mamadou Mountakha ndigalal porte parole am Cheikh Mamadou Bachir ibn Serigne Abdoul Khadir waaye ba tey ci ndigalal ñi nga xam ne ñoo jëkkoon dox ay tànk yu rafet ñu ñëw di ko mottali ndax ñun ay taalibe lañu rek yoo xamante ne dañ ñuy doxloo waaye ku ne xam ne ne kilifa yi dox nañ li ñu waroon dox ba noppi Serigne Mamadou Bachir euh, ñi nga xam ne moom la xamee ci Serigne Bass Porokhane euh, bokk ci njabootu sëriñ bi sëñ Mouhamadou taxa jógoon nañu ngir rek xam ne jàmm rek moo baax ci réew mi moo jigit waa réew mi bi jafe-jafe amee aw ay amee sëñ Mountakha yëkkati ab lim di ko séddale kon ñoom la ci motoon ndox ndox nañu ñun nag amuñu ay yenn kàddu yu ñuy wax lu dul euh, ñëw jébbal si li nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha moo ko jagleen njaboot gi kon ki nga xam ne moo fi bàyyi ko euh, way juróom jigéen nekk fii ñu ñëw fekk si ko kon imam ñoo ngi ñëw di la ko seereloo di ko seereloo tamit chef de quartier bi mais sëñ Muntaxa moo ñu yónni yëkkati na ñaari million jox leen ko kon mu doon loo xamante ne dafa ànd ak nag ay ñaan ànd nag ay ñaan yoo xamante ne ñaan sax mu ëpp doole ndax ñaani yi àdduna ak àllaaxira lay boole kon lii ñu jàppalee ko soxna si njaboot bi euh, te ñu ñaan loolu mu gëj fi mu bañ am mukk ci àdduna euh, kon loolu daal moom laa doon jottali li ci des ñun dañoo baaxoowul di am lu ñuy wax dañ ñoo yónni te àggalaguñu li ñuy def war nañ fi jóge euh, dem ci yeneen i barab am na ñoo xam ne ay tawat lañu ñu am ndax ay blessure la am ñenn ñi ay blessure yu grave la dañ leen catégoriser ñenn ñi ay blessure yu sévère la ñenn ñi tamit yoo xamante ne c'est modéré waaye ñett yëpp ku ci ne xool nañu lu tolloog ak lañ la war a jox ñu am ci ndigal bu juboo ci suñu kilifa loolu la ñëw di ko dox si jërë ngeen jëf وما يودي الاعتلال من للجنان بالحلال قد قادني بالخضر سفى بقاي كونيا قديما مفقن عونيا بمن أدام سونيا به عن المكدرين ñu ngi nuyu kilifa bi nga xam ne moo leen yebal tey mooy kilifa ñëpp parce que woone na ko doxalin bi woone na ko ne moom njaboot bi yëpp njabootam la kon moom yéene mooy ñëpp nañu nekk ci jàmm même bu deful woon lii sax bu toogoon ñaan rek ñaan boobu rek dooyoon na waxatuma nag mu jël lu ma yor mu teg ko ci ay loxo yu wóor dox ñëw egsi ba fii fekk si njaboot bi nga xam ne ndogal yàlla moo dal seen kaw te loolu mooy rôle jullit rôle jullit mooy boo gisee métit ci biir jullit yi jàppal ne métit boobu yow yaa ko moom te moom xalifa bi noonu la doxalee man dama koy suivre boo déggee waxam yëpp moom nitu jàmm la jàmm lay dox jàmm lay wax jàmm la yéenal ñëpp kon kontaan nañ ci moom yàlla na ko yàlla yokk wér ak wérle yàlla yéno bi moo yéno yàlla na ko yàlla yàggal ci loxam te mu ànd ak wér ak yéen ñi nga xam ne tam yéen ñoo koy jàppalee tam yàlla neen yàlla may kattan ñu koy koy jàppale bi jaay nabi Moustapha njaboot bi itam kontaan nañ ci moom ñun tam amuñu leneen lu dul ñaan ku la defal lu baax loo mënul mënul ma wax wax wax mun ko mën nga ko wax jërëjëf kon wax nañ ko jërëjëf kontaan nañ ci parce que fii karsi boo ñëwee ci karsi ñaar rek ñaar rek nga ñaar nga ci kii chef de quartier bi imam kon ala kulli ñun daal pontaan nañ kontaan nañu kontaan nañu trop yàlla na ko yàlla yokk sutura yàlla na ko yàlla gën a guddal fanam yàlla na ko yàlla yàggal ci kanam njaboot bi mbébét bi nga xam ne moom la am ci Sénégal yàlla na ko yàlla defal ëpp njortam te incha allah xam naa ne bu bu ko yàlla defalee loolu Sénégal dina nekk ci jàmm ñëpp xam nañu loolu kon yàlla na ko yàlla defee noonu xaaga asalaamaaleykum wa rahmatullah mi ñi ngi sant bi wér a wér a wér wér di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal mu ànd ak wér ndax tiis bi diisoon na suñu kaw trop trop trop trop ba dama jëloon benn décision sax ma ne dañuy def plainte wante depuis ku tedd ki jóge wax si ñu ñëpp dafa bës suñu xol ñun amuñu ku dul sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg wér ñu fi ñëw yëpp nag bii moo ñu si gën a neex bii moo gën a bës xol yi ndax su yónnee délégation bu mel nii waa Hizbut Tarqiyyah ñu ñëw teew fii si quartier bi man loolu rek doy na kontaan nañu trop trop trop trop trop trop vraiment kontaan nañu ñu ne lépp nag loo xamante ne jàppoon nañ ko suñu xol giif na suñu xol giif na. nañu ñaanal sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér te sens la de lii moom sens la Sénégal parce que kilifa demoon na ba rafle wante bu neex ree jóge sëñ bi taxaw ñëpp seen xol sedd na waaw kontaan nañu trop trop trop bég yàlla xam na ne mënuma wax fu mu nekk nii ndax xol bu fees xol bu sedd mënumaa wax waaw ndax sama lépp Tuubaa la sama lépp Tuubaa sëñ Muntaxa jërëjëf sëñ Muntaxa jërëjëf sëñ Muntaxa jërëjëf yàlla na fi yàgg jërëjëf wajaali baati dullami nafayta iblisa lain billahi rabbi almuin li xayri naxwi wa yuhin billahu za taallumi yaquudu qatiya almurid lil qaadiri albaaqi almuriid musaxsi an kulla mariid ilaa siwa almuallamiin nabiyuna mahaddaraat li xayri saati walqaraar walaysa yancuuni sharaar bi absi rabbi alakramin